Dakar gi bëgg a doon këru corona moo def cas sénégalais yi sursu ànd ñu moom kay bu doon bomb la rek ñu ne ndakaaru la ruure te kenn gisu ko ubbi leen xët wu njëkk journal bi téeméer ak benn yi ñemmeeku démb ci ay cas mënees nañ ne gox yu ëpp ci Dakar laale nañ ci jàngoro ji moom kay moom dafa mel ne jongante rek ne Dakar Ouest moom am na 14 bu dee sud ba moom am 15 bu dee central ba moom tamit am na fukk ak juróom bu dee Mariste 16 Géejawaay moom tamit am na juróom Mbaaw 4 Rufisque 4 Pikine 2 moom kay lii mel ne kuy joxe élection rek Sangalkam 4 Keur Massar 3 Yeumbeul 4 las nañu juróom-ñeent fukk ñeent ci ay cas plus ñetti néew. L'Observateur nangoo wax ji ca moom ne ko da ngeen di wax nag te dëgg-dëgg nag fii xasan sax wëkkagu leen ko. l'observateur nee na Sénégal mooy ñetteelu dëkk bi coronavirus bi ëpp lu mu laal ci Afrique de l'Ouest Vox Populi nañu moom kay nag moom bu fa yemoon sax mu neex na lim baa ngay bëgg a nag ne Sénégal fi mu ne nii kay nag egg na ci juróom fukk ñaar ci ay néew ñu àndandoo jël roppalaan bi naawandoo dem ba Paris fekk fa kuñ naan Lamine Diack ubbi leen xët wu njëkk journal bi Lamine Diagne nee na sama wér gi yaram sax day demee noonu waaye bi ngeen ma woowee laa bàyyi lépp lu ma jàppoon ne naa ñëw rek far lépp leer. ñi nekk ci guddi gu bas sëtëgul te seeni mbir kenn mënu ko leeral ñoo ci xët wu njëkku leese ko ubbi leen xët wu njëkku journal bi. fukk ak juróom ñett ci ay sénégalais moom la ñu jàpp fële ci Italie ñu jàppe leen lenn rek lu dul njaayum dorog. l'observateur nangoo wax ji ca moom ne ko ñoom nag ñoo yey ne njaayum dorog moom ndakate dafa dox ba egg ca lool. ne gone yooyu daan nañu wàccaale lu toll ci ñetti million bis bu ne coronavirus bii bu demul Sénégal bandeeki saay-saay la ñuy mujje du samay kàddu ubbi leen xër wu njëkku l'observateur l'observateur nee na moom kay nag moom ci jamonoy coronavirus bi manees nañ ne sit yi wane ak ndëngte di ak caay-caayu ko bon di pornographie yi ñoo fi gën a dox fii ci réewum Sénégal moom kay nag moom dañoo wér rek nag te ku wér moom faaw nga desee sa ngor wala nga sàggi sab sàkk kon nag mbokk ñi ba ëllëg